xanaa nekk xale rek xale bu yaru macha xale bu am kilifa déggal ay yaayam déggal ay tàntaam buy wax ak yow sax du siggi day sëgg di wax ak yow baax yaru loolu lañ ko xamal man seetaanuma ko damaa dem toog ci biti ndax mënuma koo xool damay dégg yuuxu yi rek su ma déggee yuuxu yi rek jóg taxaw di ko xool di xool ba yàlla def ñu gañe ñu taxaw kontaan bu bëgg a dee ñaanal ko xale bu baax la jàppale ñu fu ne ci biti ak ci biir lu mu am bokk na ko ñun buggul dara lu ñu naqari wala lu ñu metti ñu koy ñaanal yàlla na ko cet seexlu yàlla na na gudd fan ñu fekkee lépp ak mbooloo mu jullit ñi mu bokkal final bi tamit yàlla na leen yàlla jàppale jàppale mbooloo mu jullit lii yàlla na leen jik metti na torop fu metti di yem metti na ko yaay ji sax seetaanu ko démb dafa daw làqatu ji metti na fu metti di yem taxawaay bu rafet ku ci am problème rek mu fajal la ko du xaar sax nga wax ko lu mu yëg bu ñëwee tëjuñu bunt tëjuñu dara bu ñëwee man mii bokk ak yaam ndey baay du ma fi ñëw damay toog sama kër mu taal otoom ñëw fekk si ma fa bu ñëwee fekk si ma fa ku mu fa fekk nag ma nekk ak moom ci biir kër gi mu faj sa soxla kon rawatina man mi bokk ak yaayam ndey ak baay maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. ah xanaa kontaan ci équipe nationale ndax bañ ko fay woo xale la bi muy nekk terrain waali daan presque mën nañu ay 4 ans la fa dugg nekk terrain waali daan di fa football jóge fa dem euh, génération fut bi mu fa jóge mu signé dem mes ba yàlla def mu amaat beneen signature te xale la yàlla may ko lii mu lii mu am. bu toogee football di dañ ciy kontaan ndax tey am na yeneen moroomam yi bëggoon egsi fi mu egsi te ñëwuñu fa ñu koy ñaanal yàlla na gën a yokk ba yëg ko metti metti na mettiwul parce que ay papaam ñoo ko formé waali daan Gosaara ko formé Sidil euh, kii im Ibnu Fadel Sayer Bari ñoo ko formé Ousmane Ka taxaw ñoo ko formé mu nekk xale bu ndaw amul benn jaar-jaar boo xam ne metti na diggante terrain waali daan ku ne xam na famille waali daan famille football la foofu la sox ko papaam ku ko xam-xam ne ci famille football la bokk sportif la ñu koy ñaanal rekk sama kàddu gu mujj mooy di ñaanal papaam yàlla na koy yàlla na am wér ak gudd fan di ko ñaanal yaayam papaam nekk nit ku baax ku taxawu njabootam la jàppale njabootam ba fii ñu egsi tey son papa la di ñaanal tamit son yaay li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko ko yàlla jox ak mbooloo jullit Papa Matar Sarr sama càmmiñ la yaay Matar Tabara sama rakk la maa ngi dëkk Dioum ñun ñu dëkkandoo Dioum ak ay baayam saarin xale bi nekk xale bu yaru xale bu am yërmande du siggi sax xool nit mu doon ànd ak sama doom bu tudd Pape Demba Dieye kooku mi ngi footballeur la mi ngi France ñuy ànd ci terrain bi ci Walidaan waa Walidaan dama leen di ñaanal gudd fan ak wér ndax ñoom ay waajur yu baax lañu ñu fonk xale yi lañ ñu fonk àdduna bi la tabara nag dama koy bàyyeeg yàlla ndax moom moo jur doom ju baax ndax waajur bu baaxee nangu sonn ci sa borom kër nangu sonn ci sa waajuru borom kër sa njaboot du doon hasard kon lii lépp tabara la tool bi yëpp tabaraa ko béy moo ko moom moo béy waaram kon yal na yàlla jàpp kii nag di sunu doom nekk xale di defar avenir di defaraale aveniru Sénégal dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax barki démb bi yaayam di dem France fii di dem France fii laa ñëw indi fi sama ordonnance ak leneen ak leneen yaayam jëndal ma sama ordonnance ba pare doog a jël vol dem ci doomam te noonu lay dunde ak doomu aadama yi tabara noonu lay dundeek doomu aadama yi lépp lu njabootam am bokk na kook doomu aadama yi képp ku feebar tabaraang lay nemmeeku ku xiif tabaraang lay xool doomam mi ngi lay xool mënoon na def leneen te bu defoon leneen it nit ñi dañ koy xoole neneen waaye tabara jullitu yàlla yii mu yërëm nëbbul doomam tëjul doomam ci néeg ku ñëw mu ni doo gis sama doom déedéet buntu këram da koo ubbi nii ku ñëw dugg ku ñëw dugg ku ñëw dugg yal na yàlla laf ñuy ñaan yàlla nag seen coupe bii yàlla na doon may coupe coupe boo xamante ni moom la yàlla gën a nangu e ci àdduna bi ndax xale yi nag dañoo sonn xale yi dañoo sonn Sénégal dañoo sonn mag ñi dañoo sonn ndaw ñi dañoo sonn waaye xale yi léegi jom la ñuy wéyee xale yi léegi xam nañ ni seen waajur yi sonn xale yi léegi xam nañu àdduna bi nu ñuy dundee kon jom la ñuy wéyee ak ngor ak sutura ak teraanga sunu doom yi nag lion yi laay laay ñaanal ñoom yal na yàlla dolli sutura ci ñoom yàlla def teraanga ci ñoom jërëjëf. man Pape Matar Sarr au fait mën naa ni yaayam laa bàjjanam laa parce que maag yaayam ñoo xaleendoo màggandoo fowandoo ñu nekk ay amis d'enfance mën naa ni tamit bàjjanam laa ci côté papaam parce que Sidaat sama frère la sama càmmiñ la te ñoo dëkk ñun ñëpp benn koñ. te dara ñaaw sama ay ñoom yaay ne ay bàjjanam kon ça veut dire que ni Pape Matar am naa ñaari tëj ci moom cëru nday ak cëru baay vraiment match bi moom fierté la woon pour Sénégal gépp rawatina ñun waa Thiès parce que lu day ni suñu doom muy Pape Matar Sarr moins de vingt ans nga participer coupe d'Afrique bokk ci ñu jël coupe bi loolu ndamu waa Thiès la ndamu waa Grand Thiès la ndamu waa Sarène te vraiment ñu koy ñu ngi koy félicité daal ak ñi mu àndal ñëpp ñëpp ñëpp macha allah waa équipe nationale. ah mu nekk xale juddoo suñu kanam parce que ñun ñii nag man ak sama yeneen ay copines ak ay sœurs ñun ñooy yaayam tabaram yi ñoo fawandoo suñu ñaari kër yi miir moo ko daggoon ñoo defandoo lépp te moom tamit fàttewu ko parce que li tax ma ni fàttewu ko barki démb bi mu jógee voyage à l'étranger seeti ay doomam bi mu ñëwee macha allah suñu kër la ñëw andi fa teraanga bu dul jeex te bu ko neexoon. changement yomb na parce que ñu ngi ci ñu ngi ci vingt et unième siècle te xola te tubaab nee na autre temps autre mœurs te fii soppeeku defee gaa mais moom vraiment yàqu ci na fa mu newoon démb ba léegi léegi bi ma ñëwee léegi nii bi ma fi ñëwee ñëw félicité ko damaa ñëw xale yëpp ni ma nday mari yow démb fii nga waroon na yendu ndax ñoom Marème Diagne ñoom Fandaw ak ñoom ñëpp newuñu fi kon yaa waroon na ñëw fii ku fi ñëw fekk la fi yar parce que yéen ñi yéen a àndoon nag tabara ca ba muy naqari bu neexee yéen a fii war a ne kon loolu ku mu doyul dara du la doy vraiment lii daal mbégte la te honneur la daal pour ñun ñëpp. vraiment ni leen daal ñu gën a góorgóorlu te it ñoo ngi sant Aliou Cissé adduna nag dafa metti parce que boo jiitee di nga sonn parce que lu ne def nañ ko ko wax nañ ko mais lii rek lañ bëggoon vraiment ñu ngi koy félicité moom Aliou Cissé di ko ñaan tamit fu mu toll tamit nay dugal suñu doom nay dugal suñu doom ñun waa Thiès lañu te ñun waa Thiès dañoo gëm suñu bopp. vraiment loolu moom tamit man yaayu Pape Matar Sarr Ndeye Marie Niass Aline Cissé maa ngi la koy ñaan tey di féliciter Sadio Mané vraiment jàmbaar la jàmbaar la parce que li ko dal démb ku mu daloon nga découragé mais musta découragé da ce gën a jàpp vraiment jàmbaar lañ maa ngi leen di ñaanal yàlla musal leen ci cat musal leen ci saytaane di leen ñaanal daal coupe du monde bi sax mérito nañ ko ñun waa Sénégal wallaahi tey it maa ngi gërëm aussi Tabara Tabara vraiment nit ku baax la parce que li ma koy gërëm. su ko neexoon mu changé ni sama junnaa ay doomu international mais def ko billaay def ko wallaay fam ñu tegoon fa la ñu teg ba léegi ñu gisante day mel ni ñu ngi waat ci démb te loolu moom moo ko fi bu ko neexoon mu soppeeku parce que soppeeku léegi dafa gaaw maa ngi koy remercier même ñi fi newul suñu yeneen ami d'enfance yi fi newul tamit ñi ngi koy remercier di ko sargal moom tamit yal na yal na li nekk njig njiglaayu doomam mu joué waat ay yeneen kubi kubi kubi kub ñu andi ko fii ci Thiès ñun daal Thiès suñu fierté te suñu ndam la merci beaucoup. Eh, waaw Pape Matar li ma ne ci moom bari na eh, papaam la nijaayam la mais aussi formateur am la encadreur am la. ah waaw loolu moom dina mooy daf may yomb daf may yomb parce que Pape Matar eh, a vu le jour il y a cela presque 19 ans donc à bas âge donc très jeune moins de 2 ans donc il tapait déjà donc sur le ballon. ñu créé donc euh, un centre de formation de jeunes footballeurs dénommé donc Fayako en 2003 donc pratiquement moom bi mu amee deux ans la ante la intégré donc ce centre donc fa la nekk ñu koy tàggat di ko tàggat ba mu am l'âge euh, cadet ñu yóbbu ko au niveau de du lycée Waldaan donc pratiquement def fa deux ans donc euh, génération foot jël ko donc ba ni ma amee contrat nii non méttiwul parce que peut-être moom c'est un talent né méttiwul parce que c'est un donc euh, damay wax ni moom à bas âge déjà à 12 ans peut-être dafay maîtriser toutes les surfaces de contact dans un terrain de football donc Pape Matar donc c'est talent inouï quoi c'est talent inouï donc jàngal ko football donc néew woon lu jafe vraiment vraiment. waaw nous avons xam nga aussi moom dafa nekk quelqu'un ki est issu d'une famille de footballeurs donc il a le football donc dans le sang donc ce que donc on le vit en famille donc euh, koñ ba Sarène donc suñu doom mais aussi. newul rek diggante relation entre papa ak doom donc c'est des relations très amicales donc on a vécu donc pratiquement donc tout son parcours ensemble donc tey li mu am ni donc dara bett nañ ci moom kay waaw métti na méttiwul bon personnellement donc méttiwul na ci man parce que waaw maa ko wax léegi yaayam ne ko démb dama yeew rek donc j'avais des de ventre donc ce qui ne m'est jamais arrivé pratiquement daf ma def jaare parce que la pression était extrêmement forte donc euh, à mon Parce que je me disais que c'était donc euh, aujourd'hui ou jamais. Mais heureusement, donc, euh, les gosses ont su euh, relever le défi. Ils ont fait donc, une très bonne entame de match. C'est vrai que quelquefois, on a donc des, des bas, mais c'est normal dans un match de football. Finalement, il y a le maillot donc, au tir nous Alhamdulillah. Dans la joie et dans l'allégresse, définitivement ce qui s'est passé hier à Thiès, à Konyba, de mémoire de footballeur, nous ne pas. Moi, vraiment, mais c'est la première fois que gis lu mel ni non seulement dans à travers la ville mais même koñ ba donc deux jours avant donc la finale tu sentais que les gens en voulaient démb aussi mu amoon une mobilisation exceptionnelle exceptionnelle à tous les égards donc ses amis se sont mobilisés ses parents proches donc bref donc tout le quartier s'est mobilisé vraiment supporté ko ba mu jeex mu amoon une mobilisation exceptionnelle waaw xam nga Pape Matar euh, il ne peut devenir qu'un xam nga donc ñu ni kan moo ko jël ñu ni l'ancien de football Cheikh Sida kan mooy ses ses ses neveux ses ses oncles ñu ni Cheikh Ibn Sarr de l'ASC Jaraaf de l'équipe nationale Badara Sarr de l'équipe nationale donc Mamadou Kane Sarr di bi de l'équipe nationale donc moom su footballee da koo war su football da koo war il a le football dans le sang maintenant par rapport ak jom gi ñuy wax man tuddee ma ko sax jom Pape Matar c'est quelqu'un qui joue libéré donc lu mu rëy rëy rëy moom du ko yenn donc la preuve keroog bu mu duggee donc demi-finale les gens se disaient la posaient la question donc nan lay nan la ciy duggee mais boo xoolee donc ses ses premiers ballons il a joué relax dafa mel donc la pression n'était pas sur ses épaules sa manière de fer donc donc il joue sans relax donc match du ko dépassé. waaw ni léegi donc maintenant le plus difficile moom la def mooy egsi au sommet xam nga en football euh, grimper jafe wul mais boo ko seetlu egsi au sommet maanaam maintenir donc loolu c'est un challenge un boo xam ni. il appartiendra donc à l'équipe dirigeante, donc aux joueurs, et peut-être même à la génération future de maintenir ce flambeau. Parce que aussi cette génération, avec l'autre malgré wax critiques, donc euh, c'est une génération qui a su relever le défi, qui a su vraiment amener le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Donc nous sommes tous les Waouh, nous rectifier tout, hein, ah, nous rectifier tout, parce que donc euh, le niveau y Parce que nous avons aussi des joueurs de la trempe de Sadio Mane, de de de Gana Gueye de Habib Habib Abdou Diallo te mënoo defal yenn résultat maintenant man damay jàpp ni contenu bi dañu war a changer rek ak le placement des joueurs donc dans le terrain mais sinon vraiment donc am na de la matière am na de la matière. donc dugg dans ce avant ñu naan peut-être c'est quelqu'un qui est très proche de euh, Pape Matar man souvent on me dit que ne donc il a l'avenir devant lui il est très jeune man donc damay dàq loolu euh, le football c'est pas de l'âge man je, je suis un fervent footballeur de un fervent supporter de l'équipe du Brésil mais dama di fàttali Neymar à 17 ans dafa intégrer le Brésil à 17 ans Ronaldo le Brésilien a participé à la Coupe du Monde 94 à 17 ans Mbappé on l'a vu avec la France à 18 ans 17 ans donc âge bi amul solo parce que li muy ma ne bari ñu ko ëppaat moo leen ko dax il suffit que peut-être ñu jox sa chance mu wane à la face parce que suñu équipe aussi quoi qu'on puisse dire malgré les résultats amuñu un milieu terrain qui s'est cassé les lignes amuñu ko vraiment. waa mais di sant di sant ñëpp mais aussi di remercier féliciter donc euh, yaayam donc moom laa ñëw seet si dama ko wax sama matin ma ne ko donc euh, le palme donc vous revient donc moom gàcce ngaalama parce que amaana peut-être euh, su toogul woon encadrer son enfant lii lépp duñ ko am Pamata tey nekk une fierté national nekk maintenant aussi mais aussi la fierté de tout Thiessois. ñun en tant que Thiessois ñun dañ koy bëggee parce que histoire dina retenir ni c' est le premier Thiessois à avoir remporté une coupe d' Afrique à l'âge de 19 ans loolu euh, donc taarix football dañ ko ciy moo xam ne du loo xam ne du fay du fay yéen aussi di leen euh, sant di vraiment parce que vous avez fait donc le nécessaire pour venir recueillir donc euh, ces informations maa ngi leen sant bu baax a baax. waaw Pape Matar nag waaw damay wax rek maay première waaw ci li may jàpp daal man maay première fan sam daal waaw. waaw bi moom metti na méttiwul waaw metti na méttiwul Jeskër nga bien nag Sénégal yàgg na dem final yàgg nañ ko dóor yàgg dem demi final yàgg nañ ko dóor man nag Sadio maane bi fekkee match bi bi mu dawee mu am ko ci laa gën a am confiance que ni coupe bi day ñëw quoi waaw ndax Égypte amul attaque bu mu sanu défense. waaw kan bi yëpp seen défense si kenn yabu leen amuñu man loolu la sama xel dalee quoi moo tax ma jàpp ni coupe bi day ñëw. kan Pape Matar Sarr taxawaayam nag ci mbokk yi mooy ñi nga xam ne jox na mag na dañ koo mag moom jox na leen cër képp koo xam ne daal lépp lu war a sëkkat yow jox na la ko daal Pape Matar foo ko fekk doo xam ñu bokkal ndey doo xam ñu bokkal baay doo xam ñu bokkal koñ doo xam ñu bokkulat koñ ndax. tey nit ki leen dong mu am solo ci nit ah leen dong mu am solo na nga meloon démb nga mel ko tey lool dong moo gën a jafe ci nit te Pape Matar noonu la mel waaw waaw ni meloon moom la mel changé wul comme d'habitude social généraux indépendance man da bi ma ko xamee ba tey musuma ko attee xeex Pape Matar Sarr xaw ma nag quoi man musuma fekke fu mu coowee musuma fekke fu mu waxee mën naa am tamit ma bañ koo fekkee mais man fekkewuma ko waaw Pape Matar yara teggin laa ko xamee jox ñëpp cër wàccee boppam oyofal boppam suufe en tamit li may wax rek loolu lépp nag ci ay yaayam lañu ay tantaam ak ay mbokkam entourage boobu daal ndax changé la wuñ ko benn yoon tabara ak ay tantaam day mbayang ñoom ñëpp waaw waaw waaw non personne ne les plus élèves que toi honnête nit nit bu mu la gën a goree koo xamul na nga koy def daal nam la def moo tax Aliou Cissé daal li ma koy wax rek man maa ngi koy dénk Pape Matar Sarr maa ngi ko koy dénk encore une fois du ma jug ci di wax Pape Matar da ma la ko dénk Aliou Cissé waaw dama la koo dénk critiquer yi nag mënut a mun mënut a ñàkk yàlla suñ borom sax am na ñu koy critiquer yonent yàlla Muhammad am na ñu ko critiquer président Macky Sall am na ñu koy critiquer yow équipe bu pays bi lan la jox max bi passé à côté dañ lay ma daar Matar Sarr di la ñooxaa ñaaxaat xale nga demagoo fenn waaw tey ñi jël coupe bi ñu doon joué ñii ay vingt neuf ans la nam ñi ay trente deux an ñii trent cinq ans yow vingt et un ans doo nga am demagoo fenn amul lu lay rëcc ci fubal waaw dix neuf ans man xaw ma sax ah. waaw ndax sama xol dafa sedd man Pape Matar Sarr waaw dama koy supporter supporter individuel boo xam ni bokkut ak bi may supporter équipe national waaw di ñaanal ñëpp jàmm équipe bi Famara Diédhiou Sadio Mané Boulaye Nampalys Koulibaly Kouyaté waaw Ibrahima Mbaye bawuma kenn daal di ñaanal télé bii tamit def interview mu bokk ci télé yi nga xam ne un jour viendra day gën a mag ci télé di dem coupe d'Afrique coupe du monde lépp waaw xam naa sax ñoom ñoo fa bi ma ko dundee dama ni match bi ni mu demee nii biñ toogee ci saal bi ma ni leen dinañ dem euh, sëri waaye buñ demee sëri naari bu ñu ratee ñun dinañu gañe ndax Sadio maani bi mu mobiliser tribune bi laa xam ni big kii day am gañe day am ci laa xool ni gañe day am man moom dama taxaw ni naari bu ñu ratee ñu gañe Matar ah xale la xale bu baax ñoom wax dëgg yàlla vraiment xale yi football la ñu xam football ba la xam ba ñu juddoo ba tey football la ñu xam ndax lii bettuñu si Pa Matar bu dul Pa Matar sa ay magam ak i raqam ñëpp duñ ci bett ndax football la ñu xam seeni papa football la ñu xam papaam tamit si football la nekkoon si lépp la nekk ak sport loolu la doomam mi xam Pa Matar xale bu yaru la xale bu baax la Pa Matar tamit dara bettuñu si moom daal football bi tamit bettuñu équipe nationale ñu leen gërëm di leen sant. nañu gën a jàpp gën a liggéey fexe indi fi coupe du monde bi ñëpp a kontaan fi ñu toll ni kenn amul lu ñuy wax Aliou Cissé tamit ñu kontaan si moom nit ku baax la ñoom tamit équipe bi Sadio Mané ñu ngi kontaan si moom Bamba Dieng moom mention spéciale kontaan nañ si moom ndax euh, digganteem ma Pamatar moom ñëpp a si kontaan dañoo mel ni ay seex mel ni complice kontaan nañ ñëpp si joueurs yeeg ñëpp Sadio Mané ak Aliou Cissé ñëpp kontaan nañ si ñoom. man maa ngi tudd Mariña maa ngi tudd Mariña Mariña laa tudd sama raq la sama ah waaw ah, seetaan naa ko ak stress bu bari nag <laughs> su suukar yi ci kër gi yëpp macc naa ko mais xamoon nañ nag xamoon naa ni après nañ ci génn parce que xale yi ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla jàmbaar yu baax lañu man nag découragé woon naa nag mais mujj gi nag bi ma toogaatee deuxième mi bi laa xam ne coupe bi dina ñëw torop torop torop torop torop torop Pa Matar Sarr xale la xale bu yaru la du question li ma bokk ak yaay moo tax may wax lii te nit ku nekk looy wax dangay wax àqulaay sa taalaata te li ma lay wax ni boo toogoon Cees wuur ba mu daj dinañ la wax qualité xale bi yaru na yaru na tabe na am na yërmande si nit te ko laaj mu jox la ko maanaam li muy liggéey nii di ko xoslu di ko bokk ak ñun rek ñun ñi nga xamante ni ki ñooy ay magam ah man de yaakaar naa ni moom fu mu bëgg a egg man laa koy ñaanal wax naa ko jour bi mu njëkkee signé dafa tombeek màggalu Tuubaa Euh, ma prépare ñëw di dem Touba fekk ko ci mbedd bi mu toog fële moom kese ma ñëw taxaw ci wetam ni ko maa ngi dem Touba xam naa ne duñ gisantewaat mais yàlla nañ gisantewaat mais damay dem léegi nii ma ni ko wante ñaanal naa la su dee man maay samag ñaanal naa la ñaan goo xam ne xaas lay doon ci yow mu reetaan siggi xool ma ma ni ko yàlla nga raw saajo maane loolu laa ko ñaanal te bi mu ñëwaatee tamit di préparer di dem toog fii ma dugg ci saal bi fekk ko fa man ak moom ak yàlla ak sama sœur bii ma taxaw muy génn muy génn ñu daje ma ne ko ñu ñaar dafa am lu ñu waxtaan mu ne ma sam bopp bi dafa fees xamatuma ko ma ne ko fàtte nga ko mu reetaan ni ma ma ne ko am na loo ma promettre loo mais man bëgguma lool xam nga lu ma bëgg kub mun ma bu neexee yàlla kub bi dina ñëw senegal ma ma ko wax ma ak moom kese ak sama raq bii toog sama sœur bii mu génn ma ni ko coupe ñu koy gunge kër gi fees dell keroog am nañ ci moom yaakaar gi ni ma xalaat man équipe nationale ci diggu loxoom lay mujj ndax mu nga ko wax fii fii la ko waxee ñuy añ fii toog man moom benn frère ñu toogandoo di waxtaan ambiance dikk rek mu ne mu ne ñuy wax affaire équipe nationale mu di sama loxo lay mujje te loolu mi ngi koy prouver xale bu baax la xale bu yaru la lu mu am bokk na ko ñun. ñun moo wax dëgg yàlla man mii man magam dama koy rus sax léegi di ko wax ndax koo xamante ni loo ko wax mu defal la ko dangay dem ba dangay rus tamee dafa xam li mu la war a defal saa yu dikkee du génn mukk mukk mukk te joxul ku ci ne rek li mu la war a jox dina la ko jox ku ci nekk rek ku ci ne ci ñun man damay liggéey mais di jaay sax yenn saa yi mënu ma looy ni jaay lan nga lan mais il faut jigéen moom il faut nga wut loo def. mais loolu bëgg ko sax dafa bëgg lépp loo bëgg mu defal la ko ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla. ah ñu góor te xam ma xam man gëm naa ni équipe nationale bii ñu nekk nii gëm naa ni lépp lu ñu bëgg dinañ ko am parce que ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu te Carlos da cee am seex seex boo xam ne ñoom ñaar sóoreen seen ñooy ànd mooy bàmba Bamba dafa bëgg Carlos Pape Matar Bamba du ko bëgg ba ñoom ñaar léegi nii lañuy ñuy foo leen gis ñooy nekk foo leen gis ñooy kottan ma vidéo damay gis sax si léegi nii maa ngi setaan seen benn vidéo ñoom ñaar ñu ànd keroog bi ka Pape di dugg dafa dafa dafa yëkkati turbine bi ñëpp nañ jóg loolu mbëggeel moo ko waral ba pare di encourager booy bi ba pare téyal ko boppam te xale bi dafa am kersa nitu kersa la sax xale bi dafay yaru ba am kersa parce que bu ngeen toogee sa du bëgg a siggi xool la ko loolu moom yaayam moo ko ci nàmpatal yaayam noonu même yaayam noonu la mel man sax c'est la première fois may bëgg di wax sax si ay musuma ci wax maa ngi door a wax ni du may sob sob nii xumbu fu ma toog nit ñi rey mënuma wax ci écran waaw waaw damaa kontaan démb nelaw ma di maa ngi tëdd ay 5 heures du matin laa jóge fii tëdd nelaw ay quelques minutes ñëwaat parce que tamit euh, lu ñaan lu dagg lu nekk moroom ngay fekkee waaw lu dagg lu nekk kontaan nañu man moom man maa gën a kontaan ci famille bi moom man xam naa ni maa ci gën a kontaan parce que xale bi man dama ko naan sax doo sama rakk sama doom nga maay sa yaay laa koy wax mais maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm Mara samit sama raq bi Mara mooy Abdou Wadoon ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay koo koy sama xarit nag man Mara Pape Sarr sama xarit la Pago sama xarit la góor gi Sarr mais kii mooy sama xarit mooy euh, Mara ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñett nag seen yaay nag amul benn doom bu jigéen amuñu chance <laughs> amuñu chance am sœur nag wax dëgg yàlla mais ñu baax lañu ñu ñu bëgg lañu ñun nag moom suñu famille wax dëgg yàlla benn famille la kenn mënuñoo xar ñaar waaw kontaan nañ torop wax dëgg yàlla <laughs>